ci Tivaouane 24 TV ñu ngi leen nuyu di la wax di la ziara di ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yow bu baax a baax a baax di jëlee ci nuyoo bi nag alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fana may ko wér ak njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp ñi ngi ziara ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaye mbokk yi di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun temps yi moom accident yi bëri na lool suñu réew waaye nag ñi ngi ñaanal yàlla mboolem ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu yàlla yàlla fëgg seen bopp waaye ñi ci génn àddina yëpp yàlla yàlla yërëm leen waaye bu ngeen gisee waxtaan wi leen tegaloon sànq mooy Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy moom daf ci doon euh, wax di ci maanaam di ci dànkaafu que ni maanaam bëri na luy xew ci réew mi accident gi mel ni yu ci bëri yoo xam ne daal euh, jinne yi ñoom ñi ngi sini biir euh, ca bëri na luy xew loo xam ne daal maanaam ñoom ñoom ñoom seen loxo ngi ci biir moo tax fu ñu toll daal war nañ di muslu ci ñoom auzu billaahi mina sheytaani rajim waaye tamit di jàng ayatul kursi ayatul kursi yi mbokk yi lu ama am solo la képp ku ko mënul it Euh, nga dem ci internet nga tàppe ko nga jàng ko fexe ba mokkal ko di ko jàng guddi ak bëccëg am na solo lool ak ak yeneen saar yoo xam ne la ay muslaay la waaye mi ngi ci alxuraanul karim bu tedd bi yi képp ku ko mën daal di muslu moom baax na lool ndax yàlla rek moom moom mën a moonu mën a muccal moom comme ni ko Serigne Cheikh daan waxee yàlla rek moonu mën a musal bëri na yuy xew yoo xam ne musiba ak balaa yi bëri yoo xam daal mi ngi xew waaye nag yàlla suñu borom moom yërmandam yaatu na yàlla noonu yàlla musal yàlla na nu yàlla aaral boppam yàlla na yàlla sàmm waaye wax dëgg yàlla metti na lool metti na lool accident yi metti na lool semaine rek ñaari accident yoo xam ne bu ci nekk bii quarante personnes bii bii vingt personnes euh, ñeent fukk ak ak ñaar fukk mbokk yi loolu boo ko boolee bëri na lool bëri na lool bëri na lool ci ñoo xam ne génn nañ seen àdduna ci génn nañ àdduna ci accident yi daal yal na yàlla yërëm leen yàlla na àpp soree nag lu mel ni daal yàlla na fi géej ñu ngi ñaan lu mel ni yàlla fi gëj ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi masaw ñëpp Euh, di baal ñëpp ak di baalu ñëpp yàlla na yàlla boole ñu jéggal wooy leen di abonné wu fii ci Tivaouane 24 TV leeru tarixa bi waaye leeru Maodo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf